jërëjëf mbokk mi laa ko xaalin nag mm, tey ñu fas yéene dikk ci géntu goo xam ne eh, am na ci ñenn ci doomu aadama yoo xam ne daal leen di gaar mi mm, géntu wee gént gi nag moo xam nga gént ñu lay posal ay we ndax am na ci nit ñoo xam ne rawat na ci jigéen ñi dañuy dem di pose ay we kon ñu koy posal seen bopp wa ilaa ngay gént sa we gudd wa ilaa nga gént dagg say we wa ilaa nga gént ñu koy daggal wa ilaa nga gént say we gàtt yooyu yëpp lu ci nekk am na tegtal bu muy teg ci biir gént ndax luñ koy faral di waxee rek eh, wa ma xalaqa samawati wal ard illa bil xaq ba tey suñ boroom wax ne wa ma xalaqa samawati wal ardi la tegtal boobu bu ko jullit yi bàyyee xel rek day am solo na ngeen xam ne yàlla bind na asamaan ak suuf loolu ci dëgg waaye ba tey yàlla bindut asamaan suuf ci ak neen kon yàlla lépp lum def ci kaw suuf amut ay neen doomu nag moom lu muy neen ak lu muy wax yàlla ci boppam amul lu muy neenal ba ci weñ bi mu bind nii fi mu doon weñ bi bind nii eh, kéemtaanu bareñ ci weñ xam naa bu ñëwee ci gént weñ dañ ko leer laale ak njëriñ yu am solo yi nga xam ne yàlla def na ko ci yàlla ku li xaalit nag eh, mbokk mi nga xam ne daa gént ñu koy puusal ay we loolu gént ñu lay puusal we am na ci ñoo xam ni mën nay tegtale ak jaaxle wala ay xat-xat booy dangaa gént di puus we nag jëm ca xew loolu ak njàqare wala ak jaaxle wala xat-xat wala jafé jafé ci walum wërsëg batay mbokk mi nga xamné ne eh, da gént ñu daggal ay weyam dagg ay wey ci biir gënt loolu nit ki ki la koy daggal wala alal jo Warna warna joge ci yow dem ci ay nit la mu ne lu mu war jël ci yow lay doon inshallah allah ci carton yalla gënt nak du azar day ñëwé ni nang ko génte wa mu ñëwé pour ñu bàyyi ci xel baax a baax mbokk mi nga xam day xëccoo dara am ñu amal jafe-jafe wala muy am lu muy lijjanti wala mu koy xëccoo gént ay we ay weyam gudd gudd bi nag mu yem lool nag loolu it mën nay nekk ndam lu muy am ci ñooñ muy jëflanteel mën nay nekk yokkute ci moom ala kulli hal mën ngeen jël numéro yi nga xam ci lañu ñu envoyé gént di 78 443 75 27 comme gën rek ci nga koy envoyé jarul nga kenn di wote vocal kon envoyé len vocal directement seen gën nañ leen tontu batay e ki nga xam da bëgg ko sétal wala listixaara wala ñu e bëgg ndox siiti wala émorite ñooñ bu leen neexee mën nañu wote wala ñam mbokk mu reer ta xamuñ ci lu nekk bëgg ko xol ba xam mu ngi dund wala deet wala lan moko téfam téye nekk wa ilaa ñi nga xam dañu bëgg a dugg ci mbir sax bëgg xam baax na wala baaxut wala ñi nga xam ne dañuy labat ab soxna bëgg xool seen diggante ba xam yàlla def na ci lu gën wala lu gënut loolu lu mat bàyyi xel baax a baax ba xam yàlla lim ñu def gën ndax mën ngay dugg ci mbir moo xam ne gënut ci yow nga sonn ba dugg ci jëlee ci ay jafe-jafe loolu lu mat bàyyi xel la kon numéro yi mën ngeen ko jël 78 la 443 75 27 kon su ngeen duggee ci page bi noonu directement ci profil fi ngeen gis ñu bind fa appel la ko bës automatiquement rek euh, di ngeen jot numéro bi ngeen enregistré ko envoyé vocal ilaa ngeen woote numéro bi ne am na whatsapp incha allahu rabbi alaa kulli xaalin nag euh, mbokk yi nga xam ne wala ki nga xam ne nag daa gént ay weem gudd lool ba jéggi doyo bu doon kiy yëngu ci wàllum njënd a njaay wala xeeti mel noonu Euh, li ci ëpp nag loolu baaxul ci moom loolu mën nay doon ak ñàkk ci moom wala jafe-jafe marchandise way laay xat-xat euh, ba mbokk mi nga xam ne euh, daa gént mooy bopp mi dagg ay weyam loolu lu muy lijjanti luy sotti lay doon waaye dina am gàllankoor Eh, ba tey ki nga xam ne daa gént ay weyam gàtt te fekk na weyi gàttul wala mu gént dagg ko te weyi daggutoon loolu it mën nay tegtale ci ñenn ñi ak jaaxle ñenn ñi tamit mën nay tegtale yaakaar ju tas ci ñenn ñi ndax gént gi am na lu muy tekki Eh, ba tey mbokk mi nga xam ne daa génn ay wéyam gudd am na ci ñoo xam ne loolu yokkutale ci wàllu daraja waaye yokkutale ci wàllu wërsëg ci ñoom waaye ba tey it aaja faju la ba tey it génn di yor mel ni ko pose ay wey yoo xam ne xeeti njanaw yi naaw dañ koy faral di yor loolu mën nay tekk ak mucc bu doon ay noon dañ lay pexeel mën naa nekk ak mucc ci yow waaye mën nay tegtale aaja ju faju waaye mën nay doon njàqare joo xam ne day deñ kon ala kulli xaalin kon loolu mat di bàyyi xel la baax a baax ba tey it gudd ci ñenn ñi way laa ngay génn dagg say weex am na ci ñoo xam ne loolu lu war a génn ci ñoom alal ju war a génn ci ñoom lay tegtale Eh, bu doon koo xam ne tamit dangay gént say wee gudd am na ci ñoo xam ne bor yu bari dana koy waral dañuy faral di gént seen we gudd eh, ba tey nit dénk la alal way laa nga gént dagg say we loolu it danay tegtale lu la dénk loo xam ne boroom dana ko jël si kon loolu lu mat di bàyyi xel baax baax ba tey ki nga xam daa am ay bor gént di dagg ay weyam loolu mën nay tegtale ne balaa yàgg mën nay am loo xam ne yàlla dina ko jox fay ay borom kon am na ci ñoo xam ne gént di dagg seen we loolu lay tegtale kon gént ay we eh, lu am solo la waaye lu mat di bàyyi xel la eh, ku ci nekk bula la gaaree am na tegtal yu am solo yoo xam ne boo ko ci bàyyi xel rek dinga nga dégg ne eh, lii nangam lay tekki ndax eh, lu ci nekk rek amut hasard niñ koy faral di waxe gént gi am na ci ñoo xam di soppeeku ci ñoom mukk suñ génte dagg ay wex balaa yàgg ñu ragg seeni wex ndax loolu leen yàlla di wan ci gént la am na ci ñoo xam ni nag leneen lay doon ay bor yu bari wala ilaa ndénkaan moo xam ne borom dana ko jël si waa ilaa am na ci ñoo xam ne aajo ju taw faju la kon génte ay we eh, tegtal yu sol yu mat di bàyyi xel ba tey it nga xam daa faatu nga gént mel ni danga ko gis ay weyam gudd loolu it mën nay tegtale daraja waaye mën nay tegtale ñaan gu nangu goo xam ne yaa ngi koy ñaanal eh, ba mën nay tegtale ci ñenn ñi njéggal kon eh, ki gént tamit ñu koy daggal ay lool loolu mën nay nekk alal ji nit di jël njëboom incha allah rabbi kon eh, tegtal yu am solo la waaye tegtal yu man a bàyyi xel ci kàttanu sun borom jërë ngeen